sant leen gërëm leen ci seen àndaax ñun si rajo Rewmi FM dimanche bu jot rek ni lañ koy fas yéene amale ci émission gox bi te nag ñu war a see dalal ki nga xam ni moom moo di Ibrahima Kaba nekk doctorant en économie nekk itam chef de division des statistiques et stratégies fële ca ministère euh, finance nekk itam acteur politique acteur de développement ca diwaanu Tambacounda nekk itam ku ñu ràññee ci li nga xam ni nag moom moo jëm ci wàllum koom Ibrahima Kaba ñu ngi di la dalal jàmm ci émission gox bi si rajo Rewmi FM. merci beaucoup euh, Mbemba maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar également euh, sa téléspectateur auditeurs ak auditrices yëpp. Mhm. donc euh, vraiment merci beaucoup pour l' invitation. Mhm. maa ngi lay jaajëfal. jërëjëf alors Kaba comme ni ñu koy faral di defee rek xam nañu ñu ngi ci période coronavirus te mënuloo wax leen nga jéggi ko tey gis nañ lim bi. amaat na lim bu am solo bu takku la ginnaaw buñ jógee ci li nga xam ne moo jëm ci tabaski yi lim bi dafay gën a faral di yokk mel na ni coronavirus bi kon mi ngi Sénégal euh, bañ fee jóge lan moo ci sa xalaat ci wàllu yu ni mel. voilà donc euh, comme ni comme ñëpp ñu ko gisee rek gis nañu que vraiment coronavirus bi ba léegi euh, mu ngi Sénégal. Mhm. mu ngi law. donc bien au même plus depuis sax mu ngi jëlee mesure ba léegi daal. Mhm. gis nañ ko vraiment que Euh, corona baa ngi fii donc euh, cas surtout les cas communautaires temps yi ah, sonal nañu euh, sonal trop trop trop trop donc vraiment donc loolu bon il faut savoir également que ça veut dire que l'état a jël na ay mesures parce que bu mbas mi duggee ba léegi daal mhm. l'état état bi bàyyil benn yoon mhm. donc def na jël na ay mesures yu bëree bëree ba depuis le début vraiment mhm. pour que mbas mi ñu fexe mbas mi jóge fi mais gis nañ ne que nag quand ba léegi daal mbas baa ngi fii cas yaa ngi fii Euh, noté nañ aussi euh, depuis un certain temps ay relâchement am na de la part la population euh, donc loolu noonu dama jàpp ne nit ñi dañuy war a gën a bàyyi xel mm-hmm. parce que xam nga feebar boo xamante ne amakuñu saafara bi mm-hmm. feebar boo xamante ne mu ngi bi àdduna mm-hmm. bi donc war nañ mën a fexe tey Euh, en tout cas moytandiku. Mhm. parce que déjà xam nañ lan moo war a lan lan mooy joxe. Eh, feebar bi jàngoro bi jàngoro bi. Mhm. naka la ñu war a def pour que ñu moytu ko donc je pense que ñun ñëpp tey bu ñu taxawee euh, buñ ko buñ ko buñ ko respecté mesure rek gëm naa ne feebar bi léegi mu jógee fii parce que le processus du temps koy dégg mu ne mu ne tey euh, les cas communautaires c'est des cas prévisibles c'est yoo xamante ne xam nañ naka la ñuy fexe ba jot ci donc tey nit ki boo nekkee en cas communautaire ça veut dire yow déjà mun nañ ne sax par exemple yaa ko tey parce que tey xam nañ ne boo demee ci mbooloo par le virus. donc loolu noonu nit ñi tey euh, moo tax su ma gis parfois xale yi. Euh, di dem ci plage yi. à l'époque dinañ ci ñëw sax yow ndaw nga ak message bi voilà donc mhm. loolu noonu mu ci mu ci mu koy gis. Mhm. Euh, ça me fait peur parce que la mhm. fois dañu ne bu Aliou Ngoudia defoon conférence bi. wane na Euh, ceux qui ont plus les maladies mooy jeunes yi te jeunes yi ñoo gën a transmettre mm-hmm. te ñu ci gën di faatu mooy mag ñi mm-hmm. donc war nañ mën a vraiment yërëm mag ñi mm-hmm. mooy yërëm suñu suñu suñuy parents parce que tey loolu vraiment tiital nit daal donc l' malgré que mesures yaa ngi jël je pense l' état doit continuer à en tout cas à corser vraiment fan yi nii gis naa ne bu ñu waxee ne que day am ay mesures ay daan yoo xamante ne gars yi képp mhm. gis naa ne nit ñaa ngi koy commencé sol dooraat nañ ko donc dooraat nañ ko nit ñaa ngi koy mhm. commencé sol gis naa ni que plage yi nit ñaa ngi koy daw mhm. donc amatu pratiquement nit ñi ci plage yi donc les gens sont en train vraiment euh, d' de la situation bien que nag bon ñaa ngi ci wax depuis depuis lors est-ce que gi jàppoon ni gouvernement bu Sénégal dafa xaw a tuuti ci mesures yi muy jël xaw a mel ni ku xaw a lajj ci euh, wàllum euh, ni muy xeexee coronavirus bi. non non non xam nga corona souvent bu ñu koy

économie baa ngi baa ngi baa ngi am mm-hmm. problème mm-hmm. donc on est de relâcher pour que ñu mën a économie mën a économie mm-hmm. donc état bi mettre en place ay plan de plan plan de résilience beeg loolu noonu ça ça fait des effets parce que plan de résilience aujourd'hui tey boo xoolee bu ñëwee ba eh, ñu am le taux boo xamante ñu ne un point un la c'est c'est essentiellement grâce à ce plan là moo ñu yóbbu ci un point un bu nekkuloon plan plan boobu noonu. on serait presque à à une croissance lu tax askan wi di bàyyeeku ci feebar boo xam ne amul saafara. masques yi ñoo fi nekk ak gel yi nga xam ne war nañ ko jël lu tax ñuy bàyyi. loo loolu lañ jaaxal nañu xam nga tey souvent damay wax ne nit ñi tey nga dem à la Mecque. les gens renoncent presque à à à à à tëj. tëj la nekk. Mhm. fure c'est vrai def nañu aj bi. mais mhm. xool aj bi ñu ko defee ci dëkk yi nga xam ne ñoo wër. voilà mhm. donc loolu noonu euh, nga ñëw tey Sénégal. pratiquement euh, tous les foyers religieux. ñoo xamante ni tey ils ont renoncé seen i ay regroupement tey nga dem Touba le le xalif a mis deux cent millions. te nga dem ci Laayeen yi. ils ont renoncé à seen kii nga dem Gunaas nga dem feneen ak feneen. mais loolu. ku mu doyul. Mhm. je pense dara doy je pense nit ñi dañoo war a xam ne que ça ce mhm. parce que gis nañ tey nga on a vu des qui meurent. Mhm. on a ay proches. qui meurent on a vu des gens qu'on ñu meurent man souvent su ma gisee ay nit di ma naan yow est gis nga ku am corona ça fait peur moi je sais que j'ai vu quelqu'un qui a corona parce que. am nañ gis naa ko. Mhm. Euh, man gëm naa ko. Mhm. te nit ñi aussi war nañ ko gëm. parce que loolu noonu c'est feebar boo xamante mu ngi fii nit ñaa ngi gis ñaa ngi dee un peu un peu partout. Sénégal li ngeen gis dañ naan gis ñu ko am. corona mais gis ñu am corona. mais mais gis ñu am corona nga gis ni ñuy dee te te te te li ci gën a grave mooy. Mhm. Euh, le médecin qui yi médecin di te dit va à la pharmacie tel garab. kooku ñëw nga dem jëndi garab boobu noonu. kooku ñëw ne la corona am na moytul li doo ko def mais y problème la société a un problème mhm. donc je pense que tey nit ñi dañoo war a conscientiser surtout les jeunes mhm. nit dañoo war am information bi mhm. donc dañoo war a tey ñun ñëpp tous les acteurs politiques que ce soit de l'opposition ou feneen ak feneen mu journaliste yeeg ñëpp dañoo war a booloo xeex affaire bi parce que affaire bi gis nga tey souvent je dis aux euh, Sénégal gi nii fi mu toll ma yàlla am na fu ñu toll. Mhm. président bu bu bu fa ñëwaat. Mhm. bu fekkente ne le pays est à terre. Mhm. bu fa ñëwaat également da ngay da ngay sonn. donc tout le monde a intérêt a ce que le pays soit dans de dans de bonnes conditions. sur les bons rails pour que yow keneen ku fi ñëw. mu mun a vraiment euh, yóbbu situation bi. mu mun a rapidement euh, continuer l'œuvre. donc on a tous intérêt aujourd'hui à travailler pour que vraiment situation bi réglé wu. nga ko léegi ndaw ñi. Euh, keroog gis nañ statistique benn lim ci ndaw ñi mhm. Mhm. donc mel na ni kon ndaw ñi dañu war a bokk ci xeex bi itam moytuwaale ci jàngoro bi loolu moo loolu moo am sol loolu moo war a am mhm. tey wane na que ndaw yi ñoo ci gën bi jàpp feebar bi te ñoom ñooy accès de placement ñoom ñooy transmettre de feebar bi donc tey xal nit ñi dañoo war a xeex mbir mi parce que tant que xeexuñu ko Et, mais toujours, c'est dans, dans, les maisons, on verra des gens qui, qui auront, les, qui, qui auront la maladie, mm -hmm. si nos parents, on va les exposer. Mm -hmm. Donc, on n'a pas le droit aujourd'hui hein, d'exposer de, nos parents. On n'a pas le droit aujourd'hui d'exposer les personnes mhm. mhm. suñu masque sol mhm. distanciation protéger mag c'est important parce que aussi mag baax na ba euh, ba jar c'est important donc on n'a pas le droit vraiment de les exposer sol masque distanciation physique yi parce que c'est un temps mhm. gis nga tey bu ñu songee mbir mi ñëpp respecter la situation euh, mesures yi mhm. je suis que en un temps record mhm. en tout cas les cas a communautaire mooy xam nga le professeur le na un cas communautaire peut contaminer quatre cent personnes en un mois et ça c'est très grave imaginez qu'on connaît cent cas communautaires am quatre mille personnes ñoom ñoom disons pratiquement quarante ñoom sax wax nañ ko tey nee nañ nañu xaar ni lim bi gën a yokk ndax mhm. ñi ci demoon euh, li nga xam ne moo di seen bërëb bi mhm. dem julli ji tabaski mhm. tey il faut nga xool benn fukki fan ak juróom nga mën a xam ñoom am nañu jàngoro beek wala amuñu ko kon fu ñu jëm nii jàngoro bi dafay gën di yokk loolu c'est des c'est les c'est les suppositions c'est supposition on suppose que ak sa situation on s'attend on en tout cas à avoir vraiment des cas cas yu gën a bëri et même sax Euh, avant loolu parce que gis nga balaa euh, tabaski bi. Mhm. préparatif yi. mais mhm. je pense là aussi ça. je ah, Abdoulaye Diouf Sarr alerté woon na ci mbir mi xam nga am wax na ci. Mhm. nit ñi am lu ñuy di ko jéem a critiquer par ci par là. mais parce que am na lu mu doon gis. am lu mu doon gis. donc les gens euh, souvent je de l'état day prévenir souvent l'état day informer nit mais lu tax topp ñu ko ci loolu. mais mais mais am nañu am nañu ko topp ci loolu. am ñoo xamante ne bon xam nga rek. Sénégal mais mais même boo demee sax. Mhm. même boo dem mais observel

damay sol sama masque. Mhm. fu ma mënta nag maa ngi sama gel maa ngi rax samay loxo. Mhm. parce que loolu moo am parce que damay damay naan man chez moi. Mhm. dama am njaboot dama am ay mag yi fa nekk. donc je dois pas a parce que dire que ça c'est de la politique. nit ñi aussi nañ bàyyi tout le temps. di di gis toute information dans le net jàpp na loolu dëgg la. parce que y a des gens yoo ne dañuy dañuy dugal ay ay ci net bi. def ay ay ay ay ay ay kii di wane nekk subitation mhm. mais attends mhm. euh, tout c'est pas c'est pas ça qui est vrai lu mhm. vle vrai mooy tey man gëm naa ne que man gëm naa l'islam gëm naa euh, peut-être je suis chrétien ou bien quelqu'un est chrétien ou bien il est musulman on a vu qu'aujourd'hui gisuma raison bu tax bu war a mhm. tax tey nit ñi duñu respecté parce que. Mhm. quand tu es chrétien les chrétiens ils ont. église bi gis nañu lu def waa seen communiqué. musulman. gis nañu def. quand tu es mhm. euh, mouride quand tu es tijaan laayeen quand tu donc ku nekk donc alors. qu'est-ce qu'il nit ñi lu tax duñu ko respecté donc. kon jot nañu askan wi bàyyi seen xel. bàyyi seen xel ci jàngoro bi jàngoro bi. te mhm. même au delà de jàngoro bi sax. Mhm. nit ñi dañoo war a euh, jàpp ne tey mhm. Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk. le président Macky Sall ma fi nekk mais il a appelé à partir. donc il faut pas que lépp lu ñëw rek ñu xalaat ne c'est de la politique loo xamante ne a a a mu ngi fii les gens ont tout arrêté. les gens les gens tu penses que les gens. vont fermer des frontières parce que. pour mais lan mais. mais loolu sax déjà xel sax mënu ko nangu. parce que déjà boo boo quand tu fermes les frontières. mais tu perds de l'argent. quand nga def ay ay mesures d'urgence tu parce que la fiscalité yi ngay perte ay yeneen ak yeneen ngay perte si budget day am problème. pour lan pour lan. donc je pense vraiment. Mhm. nit ñi nañu war a gën a bàyyi xel. Mhm. xam na que lii nii. Euh, buñ ko songoo. Mhm. nu ñu songoo yeneen mbir yi mhm. buñ ko songoo tey yàlla bon je rapidement. on va mhm. gérer léegi ban stratégie nga gis buñ ko waree teg dinañ atteindre cible yi moo jëm ci sensibilisation ci askan wi wala état bi mu teg nii ba tey bu bu baax bi la. waaw état bu mu teg ba léegi ba léegi man gis naan bu baax la maintenant. Mhm. il va falloir a dans les quartiers. Mhm. am nañ fa ay ASC am nañ fa ay euh, en tout cas. bàjjenu gox ay bàjjenu gox ay regroupement yi fa nekk. Mhm. donc ñooñu ñooñu. vraiment ñu ñu war a mën a jàpp. ñoo war a impliqué war a gën a impliqué wu. xeex mbir mi waxtaan ak nit ñi. étudiants yeeg parce que ils ont également. un mhm. un maillon un maillon un rôle important dans les localités. Mhm. di xool naka la ñuy def pour que nit ñi gën a a a a sensible mais mhm. a ah, loolu dama koy rafetlu. man je n'ose pas sortir sans sol sama masque. wóorul ko def. donc sama masque sama oto sama feneen ak feneen dama sol sama masque. donc nit ñëpp. ñaari ñaari vole yi foog ñu def ko ñu sanctionné mhm. ko koo xamante ne defoo ko mhm. l'autre chose également il va falloir que nit ñi impliqué wu dans les quartiers ak feneen ak yeneen ak mhm. yeneen organisation ASC yeeg c' est important tout comme ça très rapidement on va gérer ces est-ce que ñu ngi agité nawetaan est-ce que le moment yow loo ci jàpp dañ ko war a ajandi wala ñu concentré wu wala li nga xam ne moo jëm ci coronavirus bi ñu def ko ab nawetaan covid xam nga tey tey je pense que y' a pas lieu y' lieu de de d' aller faire nawetaan na dañuy football. àndoo ci ànduma ci. Hmm. man ma ci ànd mooy énergie boobu bu ñu nar a jël def ko ci nawetaan di hmm. football yi leneen nag nañ jël énergie boobu noonu. Hmm. en un temps record xeex mbir mi bu ko xeexee bu ñu paree. on pourra voir comment maintenant organiser organiser kii mhm. demal demal à l'international t'as vu les matchs football yi am mhm. t'as vu t'as vu nu muy demee mhm. mais ñoom tu penses que ñoom dafa leen neex tey seen seen stade vide noonu mais neexu leen malgré mm, donc donc je pense que nit ñi lañ xool li xew à travers le monde tey le monde déjà am ah, na ada am récession 4 mhm. point 9 nga dem le pays le plus riche euh, en Afrique Afrique du Sud tey mhm. est mhm. en récession zone euro Amérique donc tey mbas maa ngi fii c'est un problème parce que c'est un xamante ne dafay laal la production bu laal la production c'est le pays bi qui chute c'est ça chute mais c'est la croissance qui qui a un problème donc je pense que tey nit ñi nañ ci gën a war gën a bàyyi xel nañ respecter barri mesure barrières parce que pour suñu intérêt la. Mhm. intérêt réew mi la intérêt ñëpp la. Mhm. donc loolu laa gëm. acteur de développement nga. Mhm. nekk itam responsable politique. ci diwaanu Tambacounda. tey boo amee message bi ngay xam ni da koy lancer sa jeunesse bi nga xam ni ñoom ñoo nekk ca diwaanu Tambacounda. ci jàngoro coronavirus bi lan ban message lay doon. bon message bi mooy nañ gën a bàyyi nañ gën a nañ gën a nañ moytu. nañ moytu feebar bi nañ gën a bàyyi xel ci li état bi di wax. Mhm. parce que li bi di wax yëpp seen njëriñ la njëriñu askan wi la. Mhm. dama gëm na tey quand bi di euh, porter vos masques. Mhm. tant sachant que masque dañu lay protéger c'est parce que ku la bëgg rek moo lay wax loolu. quand te dit observe la distanciation sociale. ku la bëgg rek moo la koy wax. quand te dit ngay ngay def gel. ak yeneen ak yeneen mesures nga moytu. si booy génn na nga génn loo xamante am na farata. bu mhm. génn loo xamante da ngay exposé il faut pas le faire. gëm naa nit ñi mais également euh, jeunesse bi nekk fi également nañu nañ nañ xeex. Mhm. nañ nañ nañ seen loxo si mbir mi ci mbir mi. Mhm. Euh, parce que tant loolu amul. seen loisir yeeg si yenn affaires yi day am problème l'état ne va pas les laisser faire. tant que tant que la maladie la mu ngi fa. Mhm. loisir rek nawetaan yeeg football yeeg yeneen ak yeneen. Mhm. ñëpp bëgg nañu football ñëpp dañuy football. Mhm. mais loolu du amati. nekkul wax ji tey. non non non kon wax ji moom je pense que vraiment yi yéen ngi ci euh, li nga xam ne moo jëm ci émission gox bi tey nag ñu siy dalal ki nga xam ne moom di Ibrahima Kaba. nekk doctorant ci wàllum koom nekk itam chef division statistique ba ministère euh, finance nekk itam acteur de développement responsable politique ca Tambacounda alors dañuy wax rek laata ñuy dugg ci koom bi. Mhm. gis nañ ni li nga xam ni moom moo jëm ci coronavirus bi euh, màggal yeeg gàmmu yi ñu ngi koy waaj. ñu ngi mhm. koy annoncé. Mhm. am na sax benn ancien ministre la république bu fi joxoon benn proposition. alors tey yow lan nga jàpp même bu fekkee ni état du moom mooy dogal ñu interdire dara. li ni mel askan wi ñoom ñoo ko war a xoolal seen bopp. Mhm. tey naka nga gisee situation bi ci euh, période bi nga xam ne nag moom mooy jëm ci màggal bi lan moo sa xalaat. man sama xalaat mooy il faut des discussions parce que xam nga bu bu mbas mi duggee. Mhm. le président dafa s'est entretenu avec tous les chefs religieux. Mhm. sensibiliser leen waxtaan ak ñoom et ils ont compris. topp ñu topp ko ci ci ay mesures yu muy jël. ci la gars yi tëjee ay mosquées ci la yi renoncé ak yéen on a fait la même chose. yu bari. on doit faire donc la même chose. waxtaan ak ñoom gën la sensibiliser la situation actuellement fu mu toll. Mhm. ak cas communautaire yeeg ak risque yu mu mën a indi. Mhm. yeneen ak yeneen je pense que bu bu ñu ko defee. bu ñu waxtaan ak nit amaana la ñuy. wala même bu dee am ñu jël ay dispositions yi nga xam ni. oui dinañ ko teg mën nañ ko teg. c'est-à-dire mhm. loolu mën na même bu ñu la am sax. Mhm. les gens moo tax ma ne la c'est des solutions qui vont trouver ensemble. bien sûr soit ils vont reporter la chose ou bien ils verront comment est-ce qu'il faut faire. Mhm. comme alhamdulilah ni ñu ko defee mille mille personnes. dix mille personnes jël daf ko ci. Euh, mais mais mais màggal koom koom la de koom gu bari lay dugal Sénégal. koom koom bu bari la mais mais mais comparé ak ak ak li ñu nar a perte. ci liy am ci feebar. ci ci ci dégâts yi mu nar a yi mu nar a indi yi a indi mm-hmm. vraiment je pense que c'est pas c'est pas comparable mm-hmm. donc l'essentiel mooy eh, nit nañu waxtaan mm-hmm. waxtaan ak acteurs yeeg trouver solution ñu xool naka la def pour que au moins ku nekk gis sa boppam donc je pense que bu ñu ko defee les gens peuvent trouver des moyens parce que mhm. l'état a a moyens d'observer de bon déroulement de ces de ces structures mais nañ mhm. xool mhm. ensemble ak euh, acteurs des je pense bu ñu ko defee gëm naa ne ak euh, ni ñoo xamee Sénégal euh, dëkk waxtaan la bu ñu waxtaanee rek nañ juboon bu ñu waxtaanee rek nañ trouver solution par rapport à tout ça loolu daf ñuy may ñu waxtaanee koom tey gis na nañ ni mbas mi ñëpp la bett. Mhm. te état du Sénégal ne dafa bëgg a jubbantiku. ci mhm. li nga xam ne moo jëm ci wàllum koom. Mhm. ci fànn bu mu ko war a jàllale tudd na agriculture mbay. ci ci ban fànn lan war a jaar ngir sukkali koom gi. ak corona bi nga xam ne nag moom moo ñu teg lii yëpp. waaw xam nga xam nga déjà euh, moom mooy mbir mbirum relance économique bi bi bi état bi état bi wax déjà avant relance bi dafa am déjà ce qu'on appelle euh, la le programme de résilience pour mhm. état bi mettre en place mooy sur les quatre piliers yoo xamante mooy le soutien soutien jàppale d'abord déjà secteur santé bi mhm. loolu moo tax tey boo seetloo on a pu on a pu am ay centres yu un peu un peu partout. Mhm. on a quand même résister euh, ñu ngi ñu ngi faj ñu feebar ñi. Mhm. beneen bi mooy euh, on tuddee ça le soutien en tout cas accroître la la la la résilience des des loolu mooy indi euh, nu tudd sax kit alimentaire yi ñu joxe. loolu hmm. mooy indi paiement euh, des factures d'eau d'électricité. Hmm. donc loolu yëpp vraiment état. gars ñu ne da ngeen euh, jàppale gars yi rek waaye da ngeen ko jëlaat yéen ñëpp. non non hmm. non jàppale. dinañ ci ñëwaat <laughs> waaw donc important. ñu ñu kii ko. loolu bu mu bu mu weesoo. am na benn partie boo xamante ne mooy soutien vraiment stabilité macroéconomique bi. jàppale secteur privé bi. de sorte tey ñu mën a. gérer euh, en tout cas euh, emploi bi. Mhm. ñu mun ñu mun ko maintenir. Mhm. beneen bi c'est c'est la l'approvisionnement en hydrocarbures en produits médicaux euh, en truc donc durant toute la durée. Mhm. en tout cas ba léegi déggoo fenn fu ñu naan. cou euh, disons courant. Mhm. Ah, manqué na dëggoo fenn fu ñu euh, ngi am tuuti. mais coupure mi ngi am mais fu ñu wax ne que essence manqué na dëggoo fenn fu ñu wax ne que euh, fenn fu ñu wax ne. ceeb yokku na mhm. donc tout ça donc moo tax ma ne le ce programme là parce que mhm. normalement mm -hmm. s'il y a pas s'il y a pas ça mm -hmm. de suite mm -hmm. donc déjà loolu noonu fexe na Euh, économie bi résilient mhm. donc yeneen secteurs yoo xamante ne c'est secteur la état bi intervenir na ci maintenant bu ñu àggee ci situation boobu noonu li ñu état bi def mooy ne on va faire la relance mhm. on avait déjà les PAP 2 parce que ci PAP 2 bi la ñu nekkoon mhm. bu ñu nekk ci PAP 2 bi na on est de faire des ajustements prenant en compte maintenant les réalités euh, yoo xamante ne c'est Covid moo ko indi. Mhm. donc maintenant ci relance bi normalement il y a il y a deux il y aura mhm. euh, l'investissement ak beneen volet euh, la consommation. parce que mhm. aujourd'hui ce qu'on doit faire aujourd'hui c'est c'est c'est c'est en sorte que li ñuy bàyyi fii ñu dundee ko mhm. ñu def aujourd'hui la promotion de la consommation locale. Mhm. donc c'est important beneen élément mooy il va falloir que ñu intervenir ci yeneen secteurs yi mooy l'agriculture mooy le tourisme mooy la pêche. Mhm. mooy la construction waaw ah, parce nañ. c'est important c'est important que ñu ñëw ci donc. Euh, ak ak aussi jàppale. Euh, comment on appelle encore les les les les, les entreprises. Mhm. mooy PME yi mooy petite entreprise yi mhm. maintenant. ci naka léegi maintenant voilà maintenant ci naka mooy. Mhm. Euh, dina am ay guichets yoo xamante ne. Euh, état bi dina ko dina ko mettre en place. par exemple pour les pour les grandes entreprises. dina dina dina dina waxtaan déjà ak euh, banques yi. ce qu'il faut état va intervenir. 40 pour cent. disons de 150 milliards yoo xamante ne. dina ko dina ko dina ko dina ko dugal. en termes de garantie. bu ko defee. ce que ce taux de bi. Mhm. mooy sera cinq point cinq. maturité bi sera sept sept euh, disons c'est de dix huit à vingt quatre mois. Mhm. maturité bi mooy durée bu ñu jox ci prêt bi. Mhm. d'accord donc non maturité bi c'est sept à dix ans. moom moom maturité loolu du yàgg. non non du yàgg c'est-à-dire maturité prêt bi c'est-à-dire loolu c'est c'est le temps prêt bi. mais dañu jox bu ñu joxee kii bu ñu joxee crédit bi. Mhm. le taux de solde c'est-à-dire taux bu ñuy crédit bi c'est 5.5 alors que les mhm. banques peuvent donner jusqu'à 15 pour cent donc xam déjà de 15 pour cent à 5.5 c'est déjà c'est déjà bon. Mhm. beneen innovation boo mooy dafa am différé. différé de 18 à 24 mois c'est-à-dire boo jëlee boo jëlee crédit bi tu dois payer. à partir du 18 18 yu mag nag léegi moom yoo xamante ñoom. Euh, état bi bon mag yi déjà ñoom ñoom moom ñoom laa wax léegi léegi mooy 40 pour cent yi. Mhm. petites entreprises yi ce sera toujours les mêmes conditions mais à ce niveau là. Mhm. état bi intervenir à 60 pour cent. Mhm. taux de bi mooy mooy mooy mooy disons la garantie. état bi dina dina dina garantie. léegi ñan ñoo gën a ñan ñoo gën a impacté ci wàllum koom ci coronavirus bi est-ce que du secteur informel bi. oui secteur informel également état prévoir na. dina prévoir na dina am ay discussions. Euh, dina waxtaan ak microfinance bi. Mhm. parce que loolu noonu état bi dina dugal benn montant. Mhm. boo xamante peut-être ce sera vingt cinq milliards ou ou plus. boo mhm. xamante ne tey dinañ am ay facilité mais xam nga tey secteur informel bi seulement jox leen seulement xaalis. ne suffit pas ce qu'il faut faire aujourd'hui c'est c'est c'est de poser des conditions. conditions yoo xamante ne tey nañ fexe. Euh, ñu formaliser leen. ñu formaliser leen parce que c'est important parce que 97 mhm. bourses. parce que mënuñu leen jox nii rek. il faut les formaliser. il mhm. faut ba am enrôlement. Mhm. mu am formalisation mu am déjà crédit bi am am formation. donc tout ça vraiment la ñuy respecter pour que ñu mën a jox crédit bi à à ces gens là. donc maintenant les les les les entreprises yoo xamante ne ñoom. ñu ngi ci activité yoo xamante ne c'est prévu par le par le PREN. mooy par le programme de euh, relance économique nationale. ñooñu bénéficier d'un de 5 pour cent. te seen maturité toujours sera 10 ans. Mm. mais ñoom à leur niveau. li mm. am solo mooy différé 24 mois la ñu am. différé 24 mois. la mm. la c'est important. mais l'état bi garantie bi 70 pour cent. état bi garanti. mel ni état bi mi ngi teg loxo. mi donc xam na ni tey mm-hmm. eh, loolu dafa dafa dafa am solo. Mm-hmm. donc souvent man su may expliquer cette situation damay naan tout souvent rek nit ñi moom. Mm-hmm. c'est comme si ngay ngay ngay voyager rek. nga nga am panne. Hmm. nga am panne boo amee panne. Euh, tu es obligé maintenant de de. li nga dencoon li nga dencoon. Hmm. nga jël ko dugal ko dépanné wu. Hmm. loolu mooy déjà yokk sa résilience. nga su bu nekk a la nga jënd a def ko ci. nga yokk après beneen pneu secours. de sorte que yow tu seras résilient en certain moment. nga démarré démarré waat c'est ça la relance. nga dem maintenant temps bi nga war a def. bi nga waroon def tu es obligé de d'augmenter mhm. euh, d'augmenter sa vitesse pour mhm. egg fi nga fi war a egg mais da xam ne ne escale yi nga waroon def di nga ko wàññi mhm. donc loolu mooy ajustement bi nga bi ñu war a def au niveau du PAP 2 pour que ñu mën a am vraiment benn benn kii parce que c'est important qu'on qu'on qu'on atteigne aujourd'hui suñu suñu suñu timing boobu noonu. bon on avait on avait vraiment une tendance bonne tendance. am na am na ñuy bëri ñu naan eh, léegi li nga xam ne moom moo di plan Sénégal euh, émergent c'est dépassé. gars yi dépassé nañ loolu. est-ce que mënuñu waat indi beneen euh, aspect bi nga xam ne war nañ ko mën a teg. Mm. parce que plan Sénégal émergent rek ngeen ñiy bàkkee. non loolu mooy xam nga xam nga loolu mooy loolu mooy suñu politique de référence. loolu mooy suñu suñu. suñu est-ce que dépassé wuñ ko itam dépassé wuñ ko parce que toujours boo xoolee y a la première phase. 2014 mm-hmm. 2018 moom dépassé na moom moom moo jàll. Mm-hmm. moom moo indi autoroute à péage yi nga gis. moom mm-hmm. moo indi piment bi moom moo indi PUDC bi. ak LS yi mu def yëpp. moo gis moo indi déjà tey tey booy dem Tambacounda nga dem Ziguinchor yooyu ñu mu defar mm. nga dem tey euh, comment on appelle encore ci dëkk dëkkaan yi mm-hmm. ngi defar yëpp c'est ça c'est la première phase moo ko defar mm-hmm. donc bu ñu fa jógee maintenant yàlla PAP 2 PAP 2 mu ñëw na nga ko ñu daal voilà mais PAP bi daa mel ni euh, accélération dafa euh, xaw a des tuuti quoi parce dafa am dafa am dafa am choc bi choc mhm. moo tax. moo tax ñu def ajustement bi ñu def résilience bi. ak mhm. relance bi. Mhm. donc bu ñu ko defee maintenant. Euh, parce que relance bi ce sera sur un an. deux vingt deux mille vingt et un dañu accélérer. moo tax boo le ministre des finances il a il a il a il à ce que les nañ toog. nañ toog parce que dafay laaj. célérité dafay laaj efficacité mhm. actuellement. Ah, lu tax choix non c' est c' est ça parce que le ministère des finances est ministère aujourd'hui disons c' la cheville ouvrière. Mhm. parce que aujourd'hui tout ce qui est euh, disons euh, recette. Mhm. ñun la tout ce qui est de la recette ñun la tout ce qui est budget suñu. donc c' est important que tey gars yi taxaw. ma ne mu ne bu kenn dem na gars reporté mhm. mais pour ne pas les aussi mhm. et vraiment parce que tu es un directeur qui devient c'est un peu compliqué maintenant mhm. chaque directeur au niveau de ton département département nga xool maintenant yan ñan ñan ñan kii laay laay mën a collaborer ce qui a fait que aujourd'hui ñun seenu en tout cas en tout cas nous sommes comme des services service ñëpp dañu léegi ci ci ban fànn ngeen di aw léegi pour sukkali loolu léegi comme jox nañ leen comme dematoo leen relever ko jug bi yëkkati ko. waaye mais mais mais déjà c'est c'est c'est ku nekk ak ak ak ak ak domaine bi ñu la jox. Mhm. ñun ñu ngi ci microfinance bi. Mhm. déjà financement yi war a dugg. fu euh, mu toll financement yi tey. Euh, bon je je pas j'ai pas j'ai de chiffres. Mhm. mais mais je sais que euh, la volonté elle est déjà xam naa ne l'État ak li mu wax nii. Euh, ci ci lañ jëm. te moo tax on se prépare. donc tout le temps c'est c'est vraiment c'est des rencontres pour mhm. préparer le terrain mhm. à que loolu bu mu ñëwee mhm. parce que déjà qui sont là ils ont l'expérience xam nañ vraiment comment comment ça se passe mais Kaba tey autosuffisance bi warul mën a nekk clé développement Sénégal tey. oui moom laa la wax ci ceeb beeg ci loolu laal fànn mais waxoon ngeen fii mbirum ceeb mais gis nañ ci mel na ne da ngeen xawoon lajj ci wàllu yu ni mel. waaw je pense mon ami Moussa Moussa Baldé wax na ci waxoon na ci donc c'est le spécialiste euh, <laughs> wax na ci vraiment que comment les les les pour lesquelles vraiment il a eu il a il a eu ce problème là. je hmm. pense mais euh, boo xoolee ci biir relance bi tey l'état l'état da ko da ci joxaat gëdd. Hmm. pour que ñu kon ah, naay vraiment vers euh, vers en tout cas l'autosuffisance alimentaire. Hmm. mais également l'autosuffisance vraiment en en yoo xamante ne pharmaceutique ci ci yoo xamante ne pris en compte dans dans la relance ñoom dañuy mhm. am euh, mhm. déjà benn garantie mhm. boo xamante ne état bi da ci indi soixante dix pour cent dafay am tey ñoom différé de vingt quatre mois pour permettre euh, en tout cas euh, la reprise de l'activité c'est important parce que souvent ce que les gens oublient ñun prévision yi gars yi defoon yëpp c'était sur trois mois que trois mois yooyu noonu mbas mi dañ ko xeex. kay jéggi na trois mois léegi na trois mois donc mmh. tu as vu ce que ça fait. Mmh. voilà. donc gën ça peut faire l'affaire euh, vous pensez vraiment. oui tey aujourd'hui mmh. tey xam nga tey tey tey feebar bi. n'a pas fait que des que des dégâts. tey ñu ñu gën a bàyyi xel. ci ci santé bi. ñu gën a bàyyi xel. Euh, comment on appelle encore le numérique parce que tey boo seetloo bu ñu doon wax ne gars yi nañ def euh, comment on appelle encore. euh, télétravail, mm -hmm. on a compris l'importance du numérique. Okay. donc tey aujourd'hui il serait important que ñu mhm. gën ci liggéey mhm. gën a xool gën a renforcer parce que n'oubliez pas que dans la relance dina am ay réformes yuy am mhm. parce que dama maa gis fenn fu ñu wax ne que par exemple boo jëlee euh, la pharmacie dañu ne par exemple les intrants intrants yi sont ils sont la TVA à la douane à la et au droit que les produits finis yoo xam ñu ngi dugg ñoom ils sont pas assujettis ceux qui sont au niveau local. Mhm. Euh, ñuy produire tey euh, comment on appelle encore euh, ces produits là. Mhm. dañuy am problème. Mhm. parce que produit fini ñuy dugg amuñu amuñu problème donc il faut que à niveau là que mu am ay réformes. beneen élément également bu am solo mooy ci réforme yi. mooy boo seetloo dañuy wax ne tey. Euh, que ces gens-là aussi ñi ñu fa nekk. Mhm. pour mettre la mise en marché. Mhm. Eh de ces produits-là day jël temps. Mhm. donc di procédures yoo xamante parce que ça peut aller jusqu'à quatre ans. xam nga loolu yëpp c'est des formes yoo xamante bi da ko war a ces goulots d'étranglement-là dañ ko war a dindi. donc day am ay ay ci secteurs yi bëri. Mhm. kon secteur bu nekk mën nañ fa xaar ay réformes. ay réformes mhm. parce que c'est ça. Mhm. loolu loolu mooy tax tey investissement yi ñuy def. ci relance bi mu am mu am njëriñ. parce que si vraiment on investit pharmacie bi alors que ces goulots là toujours là. mais du benn efficacité. mais gis nañ fi ba gouvernement bi la son appel. que ni ku ñëw ku nekk na si ñëw dugal loxoom. indi koppar bi ni mel. yéen yéen yoroon koppar gi. oui non mu ngi jar parce que y' a un nga. yaa ngi compte. compte bi tey mën nañ xayma ci xayma koppar gi. wala jàppoo ko en tête je pas à la date d'aujourd'hui je sais pas je sais pas je sais pas je pas les chiffres. Mhm. mais xam naa ne quand même y a vraiment une mobilisation. Mhm. Euh, conséquente. Mhm. parce que y a pas que état bi da dugal loxoom. à travers des ponctions yu muy def ci investi ci ci investissement yeeg ak yeneen ak yeneen. état bi da ciy da ciy def am également au niveau international euh, ay kii yoo xamante ne. Euh, bàyyi dañ ci seen wàll donc je pense loolu yëpp dina fexe tey que ni ñi ni ñi nit mën a euh, ñu mën a mobiliser tout ces toutes ces manne financière là. Okay. pour faire vraiment. 88 la mbokk yi 628 84 84 wala 88 628 85 85 wala 88 628. 86 86 yéen a ngi ci euh, li nga xam ne moo jëm ci émission gox bi te ñu si dalal nag ki nga xam ni moom moo di Ibrahima Kaba nekk doctorant xam-xamam màcc ci wàllum koom alors tey Euh, gis nañ euh, li nga xam ne nag moom moo jëm ci wàllum politique yi euh, agité nañ ko yow Tambacounda nga jëkk tey bu ñu doon wax lu gën a jàmp tey si Tambacounda tey Ibrahima Kaba tey lan la lu gën a jàmp foofu. Tamba déjà l'emploi de la jeunesse emploi. amul xëy. am na xëy mais am na lu bëri loo xamante ne. dafa sooxe dafa sooxe. Tamba dafa soxla intervention de l'État bu baax a baax. c'est vrai que euh, sur le plan sur le sur du point de vue politique. mu mhm. ngi def ay promotion doomu Tamba. Mhm. parce que am nañ fa ministre am nañ fa ay directeurs généraux. Mhm. am nañ fa euh, yu bëri. mais il faut que nit ñi gën a booloo. gën a waxtaan. jàppale Tamba beneen affaire bi mooy xam nga Tamba lépp bu ñu nekkee xale. li ñu doon damoo mooy le train. te war nañ fexe. déggatuñ ko de war déggatuñu ko donc war état bi tey gis naa ne que euh, loolu bokk na ci déjà ci ambition état vraiment defaraat la la la la voie Dakar Dakar Bamako. Mhm. loolu loolu ça peut régler une partie que la grande partie. Mhm. de la question de l'emploi Tambacounda. Mhm. dafay am Tamba tey ce qu'on appelle Mamakunda. boo xamante ne c'est c'est presque une la boo xamante ne séché na. mais loolu noonu déjà buñ ci investir. gëm naa ne que mën nañu régler problème yu bëree bëri. c' est hmm. vrai que nag bon avec a y' a vraiment des choses. qui se font na ay améliorations yu fi euh, la ci ban côté la. déjà yeneen dëkk yi da ngay gis ne que peut être yoon yi fa yi fa amoon problème. Hmm. donc gars ñu ngi koy régler tey boo jëlee yoon Tamba Kédougou bi gars ñu ngi koy defar. tey hmm. boo jëlee yoon yoonu kaw déjà Dakar Tamba bi à boo koy jël. c' était un ñu koy defar boo jëlee tey Tamba dem Bakel loolu si y' a c' avancé donc yooyu noonu ñu ngi koy defar mais. il faudra toujours être aujourd'hui ñu gën ñu gën ko bàyyi xel mm-hmm. parce que Tamba position bi mu toll la te du point de géographique nga xool Tamba c'est c'est presque l'entrée c'est de la CEDEAO mm-hmm. on a a frontière Guinée Conakry Guinée Bissau mm-hmm. Mauritanie Mali c'est important mm-hmm. donc fépp foofu lay jaar mm-hmm. donc dëkk boobu noonu mm-hmm. war nañu gën a mun a bàyyi xel eh, dëkk boobu noonu ñu gën gën cee mën a indi ay projets yoo xamante ñu ñu indi fa Tamba Tamba mën cee mën mu sax sa xam-xam màcc na ci wàllum koom nan lañ war a mën a def tey ba dajale mobiliser yooyu yëpp ngir koom gi nga xam ne Tambacounda dina ko mën a am mu gën a sukkaliku bu baax waaw déjà déjà man dama gëm ne déjà suñu élus locaux yi. Mhm. war nañ mën te xam nga ce qui malheureux souvent. Mhm. mooy nit ñi eh, dañu di fal. mais du ñu am benn plan stratégique du ñu am benn programme. loo bëgg a wax foofu conseil départemental bi comme comme la mairie. Mhm. Euh, c' des gens qui font des pilotages à vue et malheureux. da ngay ñëw des gens yoo xamante ne eh, mënuñ la mënuñ la sax woon ne voilà un investissement de de de de cent millions que j'ai à faire. pendant nga jàpp ni seen élus locaux yi élus locaux c'est un problème parce que quand aujourd'hui demal demal demal Sandiara le gars il a mis en place un plan. Serigne Gueye Diop oui mhm. un plan Sandiara émergent. boo xamante ne tey ça fait ça fait muy am muy am ay kii une partie état mu ngi jàppale mais beneen partie c'est des partenaires. Mhm. te mënoo am Tamba ak ak ak ak ak ak nu mu positionné woon. Mhm. mënoo defar benn plan boo xamante ni tey mu ngi def à l'international gars yi jàppale la indil Tamba tey souvent am na benn étude bu amoon au niveau de la DMC. mooy de la direction du monde de la monnaie et du crédit. wala ne que Tamba fait partie des régions yoo xam ne ñooy gën a di pourvoyer c'est-à-dire les migrants Sénégal. Tamba am benn wàll bu te ci li ci bokk grave mooy les fonds qui sont qui sont envoyés à de ces fonds là. sont dans la consommation. c'est-à-dire que te 30 pour cent rek mooy nekk presque investissement donc on peut travailler avec. déjà c'est que l'international renverser la tendance faire en sorte que mu ama investir les gens veulent investir à Tambacounda mais au niveau local. donc il va falloir que ce pacte de confiance là ñu régler ko. donc mu am mobilisation des fonds. on les gens peuvent a faire à Tambacounda donc moo tax ma mën a ñi fa nekk. nit ñi euh, et malheureux. c' malheureux pour nous. vraiment quand quand maanaam seen taxawaay des na. des na trop. donc euh, mënuñu tële nañ. donc je pense que il est temps que ñoom ñu dem. Mhm. Euh, voilà boo waxee ñu ne la la jeunesse est pressée mais bon aujourd'hui yàlla sax. bi nga nekk ndaw la gën a soxla mhm. donc euh, la jeunesse aujourd'hui tey moo gën a am énergie moo gën a mun def yenn yi mhm. donc euh, ceux qui sont ba bas ils ont leur avenir derrière eux mhm. donc vraiment nañu nañu nañu nañu nañu nañu bàyyi place bi ñi fa nekk ñu war a vraiment gën a mun a taxaw mun a régler problème yi laata ñuy jeexalaat ci Tambacounda dañuy ñëw rek ci benn parti ñu ngi koy junju gouvernement élargi gouvernement d'union nationale yow acteur politique nga laxa ngay gisee loolu ndax ànd nga ci loolu tey. man li ma gëm mooy gouvernement efficace c'est pas un gouvernement dañu xanaa ñii fi nekk ñoom efficace euh, des na lu bëree bëri li ma gëm mooy yàgg naa di ko wax euh, te li ma wax dama koy dama koy mhm. yàgg naa wax ne tey le président bu ñëf yi commencé a senti vraiment qu'il était seul dans le combat te quelques ministres yu gën di wax on a l'impression que ñeneen ñi euh, dañoo réer ci mbir yi. dañu réer ci mbir wala corona beneen réer non du corona beneen réer xam nga parfois. Mhm. nit moom bu ñu joxee benn département. Mhm. il va falloir que nga def ci ci nga ci war a def. Mhm. Euh, tey quand on de relance quand on parle de ces choses là dafay laaj euh, efficacité dafay dafay laaj célérité dafay laaj vraiment gaawaay. gëm naa ne tey ñi fi nekk parce que ñi fi nekk c'était des dañu jëloon c'est-à-dire avant. avant Covid bi. Mhm. dafa am ay yenn réalité yi am. Mhm. après Covid bi. mooy mooy lan réalité. mooy mooy tey il va aller très vite il va vraiment que voilà dina am ay chamboulement il faut que mu am chamboulement parce que tey peut sax relance bi ak peut-être bi ni ñu koy ak période de relance bi. Mhm. dina am sax yeneen i ministères peut-être mën nañu jël yeneen ministères boole leen. dina am yeneen orientation yoo xamante ne dañ koy changer. donc loolu lépp man je gëm maa ngi déglu euh, comment on appelle encore le professeur Moubarak euh, kii Moubarak Moubarak Lô mhm. mu nekk mhm. le mhm. a ko def tous les tous les observateurs wane nañ que gouvernement bii a continuer te gëm naa le président il est il est sensibilisé par rapport à te moom il a toutes les informations xam na donc je suis certain il va aller vers acteur nga te ci gaañ nga bokk ci nguur gi yan lan moo sooxe ban côté moo sooxe. Euh, xam nga xam nga xam nga xam nga mënuma la bon je veux pas je veux pas vraiment euh, wax tel ministère mm-hmm. bon par par jàpp ne que da ngay da ngay da ngay xeex. acharné aussi ñoom waaw mais li am solo mooy. Mm-hmm. globalement xam nga tey quand je dis le président on l'a senti qu'il est pratiquement seul. Mm-hmm. tout dire c'est-à-dire il manque vraiment de d'hommes yoo xamante ne tey war nañ ko mën parce que ces mesures qui muy jël c'est des yoo xamante yoo ñëpp ko war a taxaw. son gouvernement en premier chef les ministres <laughs> ak yeneen kii yoo xamante ni ñu taxaw mhm. ku nekk ak fi nga nekk sensibiliser wax jóg taxaw mhm. parce que foog mu am loolu tant loolu amul mon cher ami donc euh, c'est déjà tout à fait un problème Tambacounda am na ministre am na ay DG ndax ñoom message yu mi ñu ngi koy yeggali foofu waaw Tamba am na ministre euh, sama mbokk Sidiki mhm. Kaba sama sama sama sama kii la mais c'est ñu ngi gaa yaa ngi Euh, yóbbu ay masques mais dafay des. du masque rek euh, du masque rek mbir mi gis naa aussi que le le. de DG Kassé qui mhm. qui est vraiment collaborateur Mamadou Kassé mhm. gis naa ne lui va au moins mu ngi ci terrain bi gis naa ne que vraiment il est il est mhm. euh, la lutte contre bëri na ay député ngi fa maire ak yeneen oui mais député sentir ñu leen foofu gisuma si kenn quoi député yi vraiment ñu ngi nelaw ah à Tambacounda ku nekk ngi sa biir sa biir sa coin les maires aussi bu dul génnee ay kel dafa des xeex bi dafa des Tamba boo ko seetloo le gouverneur. Mhm. moom moo nekk au premier moo nekk au premier plan. Mm-hmm. xeex mi pratiquement yëpp. moom moo koy moom moo ko yenu mm-hmm. parce que ñëpp dañ koy relayer fii ci. voilà donc donc alors que ça ne devait pas le cas. Mm-hmm. moom il est par partition. donc benn benn ñoo fa ñoo fa nekk di xeex di di def di def seen i. acteur nga itam yow it wàcc nga dem wax ak ñoom. ca Tambacounda waaw man man man déjà déjà j'ai j'ai j'ai déplacement. on a fait déplacement. Euh, dem def yóbbu naa également ay gel. Mhm. mais man xam nga man parfois euh, sama sama liggéey comme je suis pas j'ai pas de j'ai pas de pas de truc. parfois mhm. j'ai des contraintes administratives yoo xamante ne waroo mën a tout le temps may dem. Mhm. ñoo xamante ne peut ils ont des nominations. ils ont des ils ont vraiment des possibilités ñu état moo leen jox ay ay ñoom dañ koy def gis naa ne que kase koy def tout le temps. mais le ministre souvent moom y a yoo xamante ne des na. Eh, donc euh, voilà quoi. war nañ gën a mën a yokk jéego bi daal war nañ gën a mën a yokk jéego bi war nañ gën a mën a xeex liggéey. Mhm. Eh, jàppale non seulement au niveau Tamba mais également national. Mhm. parce que affaire bi c'est ñëpp ci war a jàpp. Mhm. yéen moom seen parti dafa bëri ay xiiroog ngaayoo rek ay tibbante tànk ak yooyu. waaw xam nga xam loolu noonu souvent lu koy indi wax naa ko ci benn interview. ma ne le président la république moom. Euh, def na li mu war a def. Mhm. en tout cas ci ay responsable mhm. jox na ay ndombal tànk xam nga le président moom mënut a gis tout le temps les militants. Mhm. mais ñoom ñoo xamante ne moom moo leen jox ay ndombal tànk ñoom ñoo war a yëggee li président wax. ñoo yëggee li président bëgg. ubbi seen téléphone yi ubbi seen kër yi waxtaan ak nit ñi. loolu amul loolu nga jàpp bëri amuñu ñu bëri ñoo xamante ne bu jur bu ñu leen falee rek doo leen doo leen dëggati doo leen gisati. pour jot donc parfois am na militants yoo xamante ne soxla ñu sax mhm. xaalis soxla ñu liggéey lu ñu soxla mooy nga déglu leen waxtaan ak ñoom mhm. loolu c'est important mhm. mais loolu du am moo tax souvent dañu gis ay frustrations yi am nga nit ñi di menacer sax bëgg génne si le président ne mérite pas le président Macky Sall aujourd'hui je pense que mérité wul loolu mhm. nit ñi war nañu fexe. Mhm. xeex liggéey jàppalante jàppale mhm. président de la parce que il a nit ñi. il a mis des gens des conditions donc il faut que ñoom aussi à leur à jàppale ko ci liggéey bi. donc man loolu laa gëm. parti bi nag bon mu ngi noonu mais gëm naa daal. Euh, c' est vrai que nag malgré malgré cette situation là. Euh, élection yi jàll yëpp ñu ngi koy gagné. Euh, mais mais gars yi dañ naan da ngeen di dëpp carte gi rek. non amul dëpp carte parce que man gëwuma loolu. man mhm. gëwuma dëpp carte am na parce que tey quand tu dis que tu da bëgg a da ngaa bëgg a jiite réew mi. Mhm. donne-toi les moyens. Mhm. d' avoir dans cinq bureaux de vote représentant. parce que amul fenn foo xam représentant bu nekk. man nekk naa nekk de bureau de vote xam naa bu ñu def décompte bi ñëppay toog def décompte. Mhm. ku nekk da am sa PV nga nga nga ko fu ñu koy yónnee. Mhm. donc y' a pas y' a pas lieu dire ay ay dëpp carte la. Mhm. nit ñu jeexal ci wàllum jeunesse bi laata ñuy ñëw ci pàcc bu mujj ci mbirum élection yi. alors conseil de la jeunesse moom ñu ngi waajal seen renouvellement. xëy na am nga information bi. mais après pandémie bi la nar a doon. ndax mun nañ xaar wala yow dépassé nga âge bi yaa ngi ci leneen. man man moom dépassé naa âge euh, kii bi euh, pour postuler. mais quand am na candidat bi ngay jàppale. Euh, pour le moment amaguma amaguma candidat. donc mm-hmm. maa ngi maa maa ngi xool. Mm-hmm. je vais je suis en train de voir. Mm-hmm. fan la affaire di mujj mais l' essentiel mooy li ci am solo mooy nit ñi nañu bàyyi xel. que ne que jeunesse Sénégal la. képp ku mënta jël aussi gaame la la chose. ñu xam ne que c'est su ñun la bokk. donc ñu bàyyi xel ne que qu'il pas de violence. qu'il n'y pas ñu fexe daal. Sénégal. Euh, qu'il n'y a pas de problème. lépp jaar ci yoon. Mhm. ku gañ a donc voilà ñu ngi si man ci biir leneen. donc man dépassé naa kii boobu noonu. dañu for euh, ab information xawma ma ndax mun nga ko dëggal wala ñu ne danga am ay ambition jiite conseil départemental bu euh, Tambacounda. oui dama dama am ambition pour diriger le conseil départemental de Tambacounda parce que li ma fa gis. dalul xel li ma fa gis. si fi nekk ki fa nekk Sina Sissoko comme je l'ai dit je l'ai dit à Tambacounda je l'ai dit que li ma moom il a échoué lamentablement. Euh, conseil départemental mais bañ ko falee 2014 ba léegi xanaa mënoo yow da nga jàpp mënuma la mënuma la wax ne lii la def Tambacounda mënuma wax ne conseil départemental lii la def ci réalisation. dafa lajj lajj na yàgg na kooku bu ñu ko bu ko falee lajj donc c'est un pilotage à vue c'est quelqu'un qui est là kenn xamul fu mu jëm. pas prendre un département comme Tambacounda ak sa position. Mhm. di ko jox koo xamante ne xamul lu muy def. donc ñun on s'engage. da jàpp ni moom dafa réer ci. yàgg na réer réer moom dafa yàgg réer donc te fu mu nekk nii xamatul ci xamatul ci ci ci li mu nekk ñu jox la budget jox la lépp te nga nekk également o conseiller mon cher tu ne pas faire quelque chose pour la localité. bu dul di génne xaalis di maye fii par ci par là. Mhm. on n'a pas besoin de ça Tamba a de se Tamba a besoin des gens yoo xam ne gëm nañ Tambacounda Tamba a besoin des gens xamante ne ils vont servir Tamba non se servir. Mm-hmm. loolu lañ gëm man je dis souvent man politique ma koy def nous nous avons un métier. Mm-hmm. ñu dañ koy def sacerdoce la avec ou sans la politique on va continuer à travailler. Mm-hmm. tey bu ñu def politique bu ñu deful politique on va continuer à travailler. donc politique bi ñuy def ne c'est pour jàppale suñu suñu suñu suñu parce qu'on n'a pas droit aujourd'hui nekk Tamba ju euh, yaroo fa defee fa lu na tey ñiy gis yëf yi di dëng ñu koy bàyyi noonu donc c'est notre combat aujourd'hui c'est de nous battre. ñu ñu góobee nag gar ko mhm. est-ce que est-ce que jàpp nga ni tey dina yomb ka Ibrahima Kaba moom ci ban bannière la nar a demee ndax parti bi ko nar a investir wala yu ni mel waaw xeex bi moom mooy déjà que pour que parti bi euh, wóolu la wóolu la wóolu ma donc euh, liggéey nga loolu yow maa ngi koy liggéey mhm. te gëm naa ne tey boo demee na tey euh, sur le plan politique mhm. boo ci tegee ñaar ba ñett di nga ci teg parce que déjà sur le plan de la communication sur le plan des actes mi ma yoo xamante sur fond propre. Mhm. man tey am naa benn mouvement bi ma fa teg. Mhm. boo xamante xeera ani jigéen jàmm ak yaakaar. Mhm. boo xamante ne jamais intervenir ci mosquée yi di jàppale jàppale ASC yi di jàppale jeunesse bi. di jàppale aujourd'hui éducation. ñoo xamante ne ils ont les meilleures ñoo xamante ne seen parents yi amuñu seen loxo. jotu seen ginnaaw ñu ngi di jàppale. jàppale également pour lan sur sur fonds propre amul parti bi amul kenn koy lan jël naa un franc jox Ibou Ka mu dem Tambacounda sama xaalis la mhm. dañu jël dem yóbbu ko di xeex mhm. pour dëkk bi donc je pense que tey le président euh, en tout cas ñu ngi ñu ngi ñu ngi def lu ñu war a def mhm. pour que mu sa sensibiliser que tey ñun on est candidat pour la pour le conseil départemental te te loolu léeg-léeg on on on sera on y sera donc euh, voilà ci ci jamono joojee xel euh, dara leeragul ndax ni élection yi dina am wala du am mais parce que dañ ne woon au plus tard euh, vingt huit mars. Mhm. Euh, waaw vingt huit mars deux mille vingt et un. Mhm. tey ba léegi nii euh, mhm. mënaguñ wax nii dina am wala du am. ndax danga jàpp nii dana war a reporter élection yi wala dañ ko war a maintenir. non fu mu nekk nii man man déjà ak temps mu mënti nekk. non on est prêt parce que déjà déjà mouvement bu ñu créé c'est déjà quinze août passé. démb la am ci cinq ans. donc le travail que nous nous avons commencé. traité depuis depuis longtemps. Mm-hmm. donc mu am si marché bi yeeg. Mm-hmm. mu am un an après deux ans après am nga projet bu de société bi nga mën a jox waa Tambacounda ñu adopté ko. on y travaille on y travaille nous avons une équipe boo xamante ne nous avons. des gens yoo xamante ne c'est de spécialistes en la question. Mm-hmm. Euh, des statistiques. le moment venu on va présenter un programme. Mm-hmm. un kii boo xamante avec avec avec tout ce qu'il faut. Mm-hmm. pour que tey ñu wane ne que tey bu ñu ko bu ñu bu mm-hmm. voilà ce qu'on va faire pour Tambacounda. gëm naa ne te loolu noonu c'est de c'est possible. de le faire il suffit d'avoir la volonté. il suffit d'avoir nga gëm li ngay def. nga xam fi nga jëm. loolu boo ko defee rek automatiquement je pense que on va. autorité yi fa nekk waxu déggu ñu ne am nañ ay ambition ku ci mel ni Mamadou Kassé ku ci mel ni ki nga xam ne moom a di Sidiki mais acte yi ñuy posé war nañ la mën a wan ni am na fu ñu jëm ndax ñooñu tey nga bokk ak ñoom langue politique bi est-ce que jàpp nga ni dina yomb tey. tu euh, sais dans la vie dara yombul dama gëm ne dans la vie dara yombul te lépp loo bëgg fa nga sonn ci. Mhm. te loolu mooy sama gëm-gëm. te gis naa ne tey euh, en tout cas Mamadou Kassé a déclaré publiquement mhm. qu'il est candidat pour la mairie. ok te man ci collabore avec Mamadou Kassé mhm. donc réeréeruñu ci benn mbir. donc si digg nag waxul. il a pas dit. Mhm. donc aujourd'hui les deux candidats yi déclaré man la ak Mamadou Kassé mhm. conseil départemental bi moom mairie kon boobu mën nañ jàpp yéen ñaar da liggéey en tout cas ñu ngi liggéey ensemble. depuis mhm. un certain temps parce personne aujourd'hui bi may commencé bi may def liggéey beeg tout ça là c'est lui quand bu ñu boolee il a accepté. de avec moi. Mhm. ñu xeex ñu ñuy lépp luy def daf moo yëgal mhm. donc euh, vraiment c'est c'est c'est un ami c'est un mhm. frère donc on travaille ensemble donc euh, souvent mais toi pourquoi tu n'as pas tu n'es pas allé voir parent mais bon la politique c'est pas la politique c'est c'est ñu bëgg la ñu bëgg vraiment euh, ay gis-gis la te gis naa nekk moom laa bokkal gis-gis moom laa gis bokkal kii donc moom moom laa àndal di xeex ñu ngi ci njeextalu émission bi tey kàddu gu mujj gi lan la tey bu fooñ kon dañ ko doon baaxee déjà tu sais ci ci ci jaajëfal vraiment content mhm. d'être là parmi vous mhm. euh, mais également di di di wax di wax Sénégal surtout yàq nañu gën di observer mesures barrières yi mhm. lépp lu ñuy wax c'est pour seen intérêt la on n'a pas le droit d'exposer euh, on n'a suñu maam suñu kii waruñu ko waruñu parce que c'est des gens yoo xam ne ñoom il suffit pour nous waruñu mën a ñëw pour des questions d'inconscience bu dee yoo xamante ne. Mhm. ngeen di exposé war ñu ko def. Mhm. donc état bi lu mu wax pour suñu njëriñ la. état bi mu wax pour ñëpp la. mën nga ko jeexalee ci kàllaama bi nga dégg pour baaxee ko askan. Tambacounda donc donc vraiment mbé mbé mbé Fola. donc euh, mbé euh, jama mbé Fola ka fu vraiment tey bii. Mhm. añana mun kala déjà que. Euh, état ye mun fɔ mhm. an ka ɲɔgɔn dɛmɛ mhm. ye mun bɛɛ fɔ mhm. an se k'a respecté parce que o dɔrɔn dɔ bɛ se k'an dɛmɛ tey ni balaw ni an ka an ka bɔ Sénégal kɔnɔ donc cas minnu bɛ yan on doit tout faire pour an ka an ka an ka an ka fɛn Euh, comme je vais finir par, par le manding mbal mhm. mhm. mbal kontaan mbal mbal joola mhm. donc vraiment je suis très donc euh, Memba donc d'être là parmi vous okay. merci beaucoup euh, merci, merci. beaucoup uh-huh. mbokk yi sant leen gërëm leen ci seen àndax ñun ci émission gox bi Ibrahima Kaba lañ ci doon daral xam-xamam màcc ci wàllum koom nekk itam acteur de développement moom lañ doon dalal ni tey ci émission gox bi jox leen dig daje beneen dimanche ak beneen invité incha allah rabbi